amoon na benn waay bu ñuy wax dem ba mu doonoon ku baax lool yoroon benn njaqam di ci jaay ndox nit ñi bëgg ko lool ndax jikkoom ju rafet ak waxtaanam wu neex wi mu waxtaan ak nit ñi ba ko buur yégee mu woo benn dag ci ay dagam ni ko fexeel ba waral ma dem ba jaaykatu ndox bi nga indil ma ko fii ma waxtaan ak moom ndax soxla naa ko dag ba xëy di wër Demba fu ne mu dugg fa ba dajeek ba indil ko buur buur waxtaan ak dem ba ni ko dama bëggoon bis nikk tey ngay liggéey fii ci sama pale bi ndax dama fee yor ay gan nga di leen may ndox ak it dégg naa ku mën a waxtaan nga ndax maak yow ñuy waxtaan ndax man damay wéet lool Demba ni ko buur d'accord naa danaa ko def ni nga ko bëggee bu soobee sun borom nu xëy dem ba waxtaan ca ak soxna sa ñoom ñaar ñu ànd kontaan lool bég ca loola ba nu xëyee dem ba sol ay yéreem ak i dàllam ya gën a rafet dox jëm ca pale ba ni ma ngay xëy di liggéey yi ba mu àggee rekk mu tàmbali jox gan ya ndox di leen waxtaanal ak di kaf ak ñoom di reetaan ak ñoom bu noppee dem toog ca wetu buur di waxtaan ak moom di ko nettalil ay xissa yu am solo ak ay xissa yu reetaan lu lool buur di kontaan di bëgg noonu la dem ba continuer nekk ak moom nekk ak moom ba benn bés dag bi nga xam ni mooy dagu buur bi mer na lool ci dem ba jege gi mu jege buur bi ndax moom foog na ni moom rekk a war a jege buur bi daal xol ba bon na ba dem ba liggéeye bay wàcc di ñibbi dag ba dem dabi dem ba ni ko dem ba buur day wax na ma ni sa gémmiñ gi dafa xeeñ lool nanga def attention ci buur nag ku danger la dem ba ne ko ah waaw man kon nu may def ba sama xeetu gémmiñ gi duma ci lor buur dag ba ni ko ni ngay def mooy booy xëyati fexeel ba wut fulaar nga takk sa gémmiñ gi ba xet ga du dem ci buur dem ba ni ko waaw baax na dana wut fulaar di ko takk sama gémmiñ gi ndax duma lor buur ah ca suba sa dem ba xëy dem ca pale ba ba mu àggee rek moom ci la takk gémmiñ ga dund waxtaan ak buur buy may gan yi ndox it noonu la koy defee buur gis na ko waaye waxut ko dara noonu la dem ba continuer ab liggéeyam ba benn bés buur bi woo dag bi ni ko waaw dem ba lu tax muy takk fulaar ci gémmiñ gi dag ba ne ko ay bóor loolu de duma la ko wax su ma la ko waxee danga may rey bóor ne ko waxal rekk duma la def dara yaay sama dag dag ba ni ko dem ba de nee na yow buur sa gémmiñ gi daa xeeñ lool looloo tax muy takk gémmiñam buur mer lool daa di gis soxnaam waxtaan ak moom ak li dem ba wax soxna si ne ko képp kuy xalaat ni buur gémmiñam daa xeeñ kooku lenn rekk la yeyoo mooy ñu dagg bopp ba ak baat ba sànni ko buur ne ko baax na xalaat bu rafet nga joxe noonu lay def ba ñu xëyee buur woo benn soldaar ci soldaaram yi jox ko jaasi ni ko bu subaa képp koo gis mu génne fi yor potu fleur rekk daggal ma baat bi bul wax a ñu xëy dem ba continuer ab liggéeyam ca nam ko daan defee di kaf di ree di waxtaan ak gan ya ba heure wàcc jot mu dem di tàggu buur buur jox ko benn pot de ni ko may naa la ko ba mu génnee dajeeg dagg ba dag ba ne ko foo jëme lii mu ne ko lii de buura a ko may dag ba ne ko teeg ma ko may lii maa la ko gën a yeyookat waaye dem ba ne ko ah, amut solo am mën naa la koo jox de ndax man yaay sama genn wàll ndax ginnaaw yàlla yaa tax ma ñëw ci pale bi dem ba jox ko ko daldi wàññi ko dem aw yoonam ba mu demee dag ba génn rekk dajeek soldaar ba soldaar ba tegu ca baat daldi dagg boppu dag ba ba ñu xëyee dem ba xëy dem liggéey ca pale ba waaye nag ba tey mi ngi takk gémmiñ gi rek di jox gan yi ndox buur gis ko nag daal di jaaxle lool ci dem ba mii mu gis tey te mu yaakaaroon dee na buur ne ko waaw dem ba yow li ngay takk sa gémmiñ gi lu ko waral Demba ni ko ah man de sadak bii ma fi indi moo ni ma sama gémmiñ gi daa xeeñ te yow bëggoo xet gu naqari moo tax ma di ko takk fu ma toll buur ne ko waaw portefeuille bi ma la joxoon nag noo mu ak moom dem ba ne ko man de portefeuille bi ma joxoon ba ma génnee dama dajeek dag ba mu ni ma portefeuille bii la buur may maa la ko gën a yeyoo teeg ba ko may après ma daal ko koy jox ci la buur reetaane nag ni waaw wax na dëgg moo la gën a yeyoo mos portefeuille booba kon yéen samay mbokki jullit jàngat bi mooy la wolof waxoon ni yéene néeg la boroma cay fanaan kon jarul kenn di sonn naan catama topp wala awma dara wala dama sonn jarul wuti ñaan jarul wuti dara kenn ku ci nekk na xool li nekk ci xolom ak lim yéene doomu aadama yi kenn ku ci nekk li nga yéene doomu aadama yi dong la la sunu borom di jox ndax noonu la ko yàlla waxee yàlla nee na man amila saalihan fali nafsihi wa man asaafa alayha képp ko def lu baax yéene ko nit ñi danga am lu baax waaye ko def lu ñaaw yéene ko nit ñi it danga am lu ñaaw